gome sa kanam ak say xef wax fi lu neex lu la saf. lii lii lii dafa doy waar quoi. certificat médical ne non non. Adji Sarr c'est le médecin qui a consulté dit non. Adji Sarr c'est un mytho. capitaine Touré mu nekkoon ci enquête bi reculé. Adji Sarr c'est un mytho. ok gars bala ñoo commencé vidéo bi maa ngi leen ñaan ngeen like vidéo bi vidéo bi xam naa da ngeen koy bëgg like mais da ngeen koy fàtte da leen like vidéo yi baax baax baax baax a baax képp koo tamit abonné maa ngi lay invité nga ñëw abonné ci page bi ah? bu la neexee aussi boo seetaanee ba pare nga daal di partagé dëgg du romb nopp ok gars bu loolu weesoo tamit bala ñoo commencé présenté te gis nañ ci njariñ bu baax a baax kii moom wax dëgg fa yàlla yàlla dimbali na ma daal ba li nga ma defal gis naa ko kon boog Serigne Saliou Mbacke borom njurul présenté waatal garab ngir gaa yi xam njariñ li waaw lii mooy borom njurul képp koo xam dafa am impuissance sexuelle muy fatiguement général diabète tension perte balance règle douloureuse yooyu yëpp da koy dindi ba di lëndëm biir buy metti tànk yu xar estomac insomnie li muy saafara mën na fukki jàngoro ak juróom wallaay ko ko jëfandikoo lépp lu nekkoon sa ah, allah kon boog gars yi lii nga gis résultat incha allah kon boog gars yi contacté leen gaaw ngir mu mën a saafara seen ay jàngoro cabinet bi nag mi ngi nekk Ouest Foire am na beneen bi muy waaj a ubbi te noppi na presque te ñu ngi koy waaj a inauguré le premier bi incha allah fële ci Touba ndaxte waa Touba ñu ko doon laaj Serigne Saliou Mbacke borom njurul daal mi ngi yaatal yëf moom tamit dina la seetal defal la ay ñaan ndaxte yàlla dénk na ko xam-xam te li ma gën a neexati ci moom nag moom léppam alxuraan la te noonu la seetee sell te léegi ku ne xam ne fu jamono ji toll nit ñi dañoo yittewoo ay ñaan te ñuy naxaate yàqal nañ ñi nga xamante ni dañoo mën te bëgg a dimbali nit ñi rek te yàlla rek tax mais bi ma demee ba découvrir ko laa xam ne non mais yàlla may na kon boo gars képp koo xam ne bëgg nga Serigne Saliou Mbacké la a tugal muy 77 752 63 93 77 180 19 93 bu la neexee sax nga woo ko ci 78 578 68 40 78 578 68 40 moo xam ci garab yi nga bëgg ngir mu faj say jàngoro wala moo xam da nga bëgg mu seetal la defal la ay ñan yéen ñi nekk bitim réew tamit boo leen wooyu sëriñ bi ci whatsapp bi incha allah di ngeen ko jot même boo leen ko jotul ngeen bàyyil ko message ci whatsapp bi kon boog sëriñ Saliou Mbacke borom njurul kontaan nañ ci ni ngay taxawee ci jafe-jafe askan bi chaque jour qu'on dort qu'on se réveille y a de nouveaux dossiers gars yi xawma ku jommiwul mais man zaal jommi naa lan la lu xew. ah damaa xam ne kat deux mille vingt et ba jot na yàlla gi tey ci deux mille vingt trois bii ñu nekk. Ousmane Sonko rek la ñuy wax. gars yi yëpp même moo lañ répété Ousmane Sonko Ousmane Sonko. candidat Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Sonko. Ousmane Sonko moom yàlla ji wàcc Sénégal la. muy Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Ousmane Sonko dafa jiiñ moom. li ci Ousmane Sonko aussi ñu ci politique. ñu ne Ousmane Sonko dañu ànd. Ousmane Sonko. waaye baleen Sonko talu leen. ah vraiment. les bojo bojo Sonko amul seen jot. am na wala amul. waaw ah, loolu dafa yàlla ji tey ñoom ñëpp ba ci monsieur le président. waaw waaw si benn nit képp loolu mooy wane ne. état bi dañoo tombé ci piège yu. waa Pastef. lii jaay la wala lu mu doon. lii lii lii dafa xanaa xamoo leen ne am na ñu mujj faral Ousmane ah, que dañoo dem ba xam ne kii dañ koo singli. ndaxte sénégalais bëggul kuy néewal doole moroomu sénégalais rawatina nag nga nekk si dëgg. Ah, yow nga nekk si kër wóor na kenn du wujjee ak yow moom est réew moom dina dox une très bonne question teg si nag topp nit ki ne ko far force yaa def Macky Sall laisse Sonko tranquille xam ngeen ne tamit tamit li xew ci dëkk bi depuis barki démb ba tey rafetul ci réew muñu naan Sénégal loolu dafa ñaaw nañ waxante dëgg dara mënu ko justifier mais c'est bizarre jël benn nit rek teg ko soog si te kër góor gi ba Casamance tout à Ousmane mais c'est honteux waa tamit monsieur le ne du ko may jàmm Macky Sall laisse Sonko tranquille xoolal li xew ci réew mi dëpp bërki dem ak tey police dem bay arrière ci kaw élément am far mu mujj jaare fa ñàkk bakkanam xoolal tamit ñaata jeunes ñoo si ñàkk seen bakkan te ay bar réel lañ leen dóor ñu ci bëri am nañ ci fitna réew mi ci boppam actuellement ñëpp jaaxle ndaxte lu fi mustaan xew moo fi commencé di xew waajilee Macky Sall indil jàmm waajile man de wax dëgg fa yàlla yaakaaruma woon ne moom xanaa du nest léegi nit ñu war ko arrêté da ngay bàyyi rek ñu arrêté koo xam boo ko arrêté réew mi tàkk ku war a décider loolu procureur day laaj ministre bi lan la ñuy def ministre bi ku muy woo le président la république bu fekkee ne moom xam na ne kii buñ ko jàppee ay nit nañ si dee est dina ko bàyyi xëy na dina am beneen yoon bu mu jaar bi téye kooku wala. billaahi wal kitaabi kenn musul xam ne di nga mel nii. mais c'est honte. président. naam. sénégalais sonn nañ ci li nga leen di teg de. yëg naa ko. jàpp nga leen a jàpp ba loolu doyatu la. ba pare boole ci di leen yeew. bu loolu yemoon foofu sax mu neex de ñu continuer dóor askan bi ay bar royal mel ni kuy guerre ñu ñàkk seen bakkan. defal attention ci li ngeen di def nii. te li ñuy def nii ba yomal xiyam du mës a fay film lay doon ci àdduna bi. xale yi ñëw génération yi ñëw ëllëg dañ koy seetaan. te li gën a bon ci àdduna mooy président bu ñëw ba dem nouvelle génération bi ñëw di lire archives yi. waaw waaw naan kon ndekete kii ci vulgarité la yore woon réew mi. loolu dafa ñaaw nañ waxante dëgg dara mënu ko justifier. mais c'est bizarre. waaw waay Macky lii nii est-ce yaa ngi toog jàpp sa xel xalaat lii xew ci réew mi yaa ngi koy gis wala est yaa ngi koy xam. c'est sûr que mi ngi teg ay bëtam te mi ngi koy xam. déedéet déedéet. ko waxul dëgg. nit moo ko siy dugal. ñooñu ñu ngi lay sànq. bu fekkee ne tamit ñi ministre de l'intérieur ak sa procureur bayil ni ngeen di def rew mi bu len ko fowé moy que nit ñi dañoo wax wala wax au président Macky Sall nekul ne mom lu mu bëgg loolu mo fi am di nga wax moy dëgg di jaay doole nit ki ba ñepp tek seen bëtt xam kat ki dang koy jaay doole amna wala amul wa ah, loolu dafa leer même pita sax boko ko bëggee mais il faut nga nakku ko sanni duggu bëgg yoy mais yow mu leer na ni dang ko bëgg a bëgg ko tek ci doole yaakaar na dina am ay sénégalais yo xam ne taxaw jamarlo ak mom di nga wax moy dëgg ay lii dafa ñaaw xolé xalé bu ndaw bi ñu ray kër mbay faar rek nee police bi ñaari bal ko dóor ñaari bal ci xalé bo xamanté la juddu. ci xale bu ndaw xam nga ne mos loolu ñaaw na. te ñoom ñoo ko dóor ñoom ñoo ko tiire xale bi te xale bi nii nii nii tey bu ñu ko tëddaloon fii mu tëdd di nga gis bal bii nii fi mu marqué ci yaramam bal bi daa jàll ci biir dënn bi génn ci ginnaaw. dafa ñaaw quoi. rey bu ñaaw lañ ko ray bi ñu rey xale bi nag lañu bàyyi sax nit ñi xaw a firi ngay ñemee dox ba ci seen wet ndax xam nañ ne liñ def def nañ jëye quoi mais avant loolu. man bi may doog a ñëw fu ma toll damay dégg Rakarol Mazele ñu ne ma taxawal ma damay dem. waaw ndax doom la. waaw ma foncé dem man sax mënoon nañ ma si raay. ndax man ni ma ni ma gis ñoom ñu taxawee ñooñu ay raykatu nit lañ quoi te rey nañ sama doom dafa am avenir. sacrifié nañ sama life sama doom xool yar sa doom ba toll fi mu toll nga am ci moom yaakaar. Hmm. nga ñëw fekk ñu rayal la ko xamoo ku ko rey. lii lii lii dafa doy waar quoi. bu ñu demee ba ñi ñu war a protéger dañuy rey léegi ñun fu ñu jëm. Macky Sall tu es le président si yàq na ko rek. Adji Sarr nga xam ni. nee na dañ koo tooñ. yow noppil fis nu la peewaay ak Adji Sarr. comment. ma ne nga may ñu jàmm laa wax ak Adji Sarr depuis bi nga commencé wax ba tey kenn dégluwul la xanaa nga mën a noppi. yow koy yab. yow wax. yow koy déglu. man kay ñun ñaa ngi may déglu yow kay heureusement ñun ñu comédien la jàppee. nga ni ma ne nga noppi laa wax sa wax ji amul benn organisation kon nga war a noppi nag te nga wax journaliste yi ñu poussé leen seen micro yi parce que yaa ngi koy tooyal wàccee leen micro yi soo du ma wax waaye gars yi yéen tamit wàcce leen seen micro yi kii mi ngi koy tooyal de maître am na micro yu des de te yaa ngi koy tooyal micro bu rouge bi may seen tamit kooku moom mi ngi koy sapeur de borom kab bi yow tamit wàcceel sa micro bi saawaay mi ngi koy tooyal de borom kab bi wàccal tuuti ok baax na maître léegi fompa sa gémmiñ ngir yàlla rasul bu fi waxaat nag demal bu fi waxaat laa wax nag demal te beneen yoonee bala nga fee waxaat na nga fomb sa gémmiñ gi ngir yàlla s'il vous plaît ah intéressé du la mën a intéressé kenn ndaxte li ma wax engagé wu la acca lagal billaahi kii moom sama xol dafa jeex si moom. waxuma sax lu may wax. waxuma nag nag mu nekk fi nan day sinap. Adji boo ko xoolee kanamam gu wow googu. muy mel ni géej gi yas. indi problème Sénégal ñin ñi nooyu ñu. doomi réew mi di si ñàkk seen bakkan ba pare sax projet mu dëkkee sinap du ñu ñaawal. mel ni moo ñu moom. Adji Sarr moo waral ñi ñu war a aar di ay bal réel ci kaw askan wi. pour lan koo xamante ni saa yu ñu nekkee ci jàmm rek bu génnee amer nañu. Adji mel ni moo ñu moom. mais c'est honte. waaye kii sonal waay. kooku nga xam ne ku ko xool xam ne gitama nañ ko gitama yee. ba neex mu ñuy bëgg a rey. mais c'est honte. fii ku ne xam na ne Sénégal ci jàmm la ko ñëpp xamee woon. mais Adji Sarr moo yëngal lii lépp pere dem yoonam. kanamam gu waw muy mel ni raakelet. dëkk boo xam ne ñëpp a woon ci jàmm nag nga taal ko. gomee sa kanam ak say xef wax fi lu la neex lu la saf. lii lii dafa doy waar quoi. certificat médical ne non non. Adji Sarr le médecin qui a consulté dit non. Adji Sarr capitaine Touré mu nekkoon ci enquête bi reculé. Adji Sarr c'est un mytho. borom Sweet Beauté ne jëkkëri borom Sweet Beauté ci boppam ne gisul dara Adji Sarr c'est un mytho des audios fuités de affaire yi Adji Sarr c'est un mytho le marabout de Adji Sarr dit non Adji Sarr c'est un mytho Adji Sarr ne dafa deux ans ba jonn yàlla yi tey ñi ngi xaar doom mënuñ ko teg bët Adji Sarr c'est un mytho Adji Sarr ñëw di wii ne affaire yi am na ba léegi nii gaa ngi ci ñàkk seen bakkan loolu dafa ñaaw nañ waxante dëgg dara mënu ko justifier mais c'est bizarre mais maa ngi ñaan yàlla nañu yàlla atte ak yéen nañ ko yemale foofu ba beneen yoon man de lii laa wax mbaa yéen tamit loolu ngeen wax ah, man ñun lii nañu mën a wax ñuy bu ko defee ñu jox mu am ñan ñu tasaaroo ba beneen yoon amin ferme-moi <laughs>